di def ay témoignages fii ci le chef de l'État le président de la République Macky Sall yóbbante nañ la ci moom boo demee nga ne ko waaye yéen kontaan nañu commune yi Jalaaw yëpp kontaan nañ ñu ngi koy gërëm di ko sant dëkk bi yëpp dem na y a plus de seize maisons qui sont parties lii nag passé na dooley mairie. léegi nag ñu ngi def un appel nga ñëw dimbali waa Jalaaw dimbali waa Todd dëkk bi yëpp mu ngi dem te les gens sont impuissants li ñu bëggoon nag comme amoon ñu doon korkor yi di jéem jënd ay kër ci kaw di jéem a tabax te mënuñu nañu leen dimbale ci ay matériaux de construction suñu leen ci dimbalee ñun waa dëkk bi ak commune bi yëpp dinañ ci jàpp ñu def ay investissement humain ku ci nekk ñu tabaxal ko lu mu bon bon ñaari nekk parce que ndimbal na ca fekk loxol borom. ñu santaat yàlla bu baax gërëm euh, rasul alayhi salaatu mais sant aussi ñi nga xam ne fekk nañ leen fi lu tax loolu fekk nañ fi ay jullit fekk nañ fi ay chrétiens fekk nañ fi des croyants ñoo xam ne nangu nañ ne lii am nii du ci Macky Sall du ci état du ci gouvernement ci yàlla la ndogalu borom la. et bu doon Sénégal kese ñu mën a wax mais nag adduna bi yëpp la tey ci tey da dégg dëkk ñu ne la plus de 400 personnes dee plus de 1000 personnes dee na fa yàlla musal nañ ci ba tey ñu ñaan yàlla loolu yàgg loolu sax et suñu réew mi nag yàlla dafa def def am ñaari nit def am ño xam dañuy ramé pour luñu indi réew mi pour défaral réew mi ak ño xam dañuy ramé contre les intérêts de cette population pour lan top ci réseaux sociaux yi di wax lu leen neex di def lu leen neex alors que man damay ne bëgg sa réew warul nekké nonu bëgg sa réew moy li am yéen quelqu'un qui se dit patriote ou quelqu'un qui se dit républicain mm-hmm. les mu war mooy ñëw ak waa yeen mm-hmm. takk ndigam dugg ak ñoom fii def ak ay force def ak ñoom

kon ñu bàyyi parfois diversion parce que am na fu ñuy toll diversion amatul foofu place la des nag état def na un effort par rapport ak li nga xam ne fekk nañ ko fi jàppale nañ leen ci ay matériaux de construction ay ciment ay fer ay zinc ak yu mel noonu jàppale nañ leen aussi ci ay denrées alimentaires parce que xam nañ période yu mel nii ñu ci bari seen dund yàqu na wala seen loxo jotul seen gannaaw président Macky nag def na dans de pareilles occasions nañu réagir te suñu réagir aussi mu nekk une réaction rapide boo xam ne dana utile dana utile ci population bi la des wax nañ wàllu euh, littoral bi te nee nañ solution durable bi moo ñu defar fi dig de protection mhm. loolu dinañ ko yeggalee ci ñi nga xam ne sama naataango yi ko yore mhm. dinañ ko étudier te am naa yaqin que ni lépp loo xam ne war na ci mën a nekk su ci mënu président Macky Sall dina ko def à l'endroit de ces populations qu'il considère comme les leurs